murtajan minnatun lanaa jariun seytaani rajim bismillaahi rahmaani rahim mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullah ginnaaw sant yàlla julli ci yonantam bi ñu ngi dellu siwaat di leen nuyu di leen ñaanal di sàkku ci yéen ñaan dellu siwaat ci seen émission bi ñu tuddee Madinatu Ilmi ñu ciy ànd ay bis bu jot ñu ko amale fii ci 24 actu ñu fas yéene dikk tey wax yéene waxtaane benn tomb boo xam ne dana itteel lool dana itteel waaye tamit dana doon actualité ndax ku ne xam na ne ñu ngi jub ay élection yoo xamante ni ay élection li ci des bareetul élection nag lu am am solo la mooy tànn sunu njiitu réew yàlla dogal nag ren sunu élection yi ñu jëm ñu fa yéene ce tànn juróomi candidat ñoo war a séq élection yi di ñëw juróomi candidat yooyu tamit yàlla def na ci tawféex lool ci Sénégal mooy juróom ñu koy xëccoo ñoom ñëpp ay góor lan yàlla dogal na tamit ay góor yu mësër lan yoo xamante ni yu mage ay muskàllaf laa laa bëgg wax daal ne ay muskàllaf lan boroomi responsabilité lan yàlla defal tamit ñoom ñi ñuy tànn réew mi ni mu tëddee ku nekk xam na ko réewum layig la waaye yàlla dimb dimbali nu jullit yi ñoo fi ëpp yàlla dogal ñiy tànn réew mi tamit ñu ko wootee ñëpp ay juri ay jullit lan ñoom ñoo ñu koy xëccoo ay jullit lañ yàlla dimbali nii tamit buñ ko càmbaree benn jigéen nekku ci ay góor rek ñoo koy xëccoo góor yooyu doon juróom mel ni suñ boroom daf ñu ciy waxantaane juróom xam ngeen ne lu am am màndarga mu am solo ci lislaam la kenn du ne nag ku dul jullit waru koo jiite waaye nag yàlla ni mu defee ku nekk ne Sénégal quatre-vingt-quinze pour cent yëpp ay musulman lañ jullit lañ yàlla dogal ñuy tànn loolu kon responsabilité am na ci àq jum ci war a def ci sama analyse su bopp de yëg naa ne yàlla de mi ngi ñuy tànnloo bu baax a baax ndax ginnaaw bi nu demee ba faxas ñu doonoon ñaar fukk ak nàngam yàlla di ci tànn ba tànn ci ku nekk xam na ne <clears throat> yonent yi nga xam ne ñaar fukk yonent ak juróom lan tànn ci nabbi yu ñu ni yónni mursal ñi nga xam ne ay yonent lan ñu koy wàññi ba mu des juróomi yonent xam ne juróomi yonent yi mooy juróom yi gën ci kii ñu dem ci sunum réew mu doonaat juróom ñoo xamante ni ñoo war a xëccoo élection bi kon loolu wax dëgg yàlla day nuru ne ah yàlla mi ngi wax ak ñun lisaanu àll la dafa mel ni moom lay waxee bu nu dikkee ci julli juróomi julli moo am juróomi julli lañuy julli kon loolu ba léegi beneen kii la bu nu dikkaatee ci sunu ponk lislaam juróomi ponk rek la mooy juróom yi nga xam ne benn jullit warul dugg ci lislaam te gëmoo juróom yooyu faaw nga gëm ni baati tudd seete yi gëm ne yàlla mooy yoon yonante bi loolu moom ngay tudd baati seete yooyu boo noppee da nga taxawal julli taxawal woor natt asaka aj makka boo ko mënee kon loolu dafa mel ni kon ñooñu ma tudde leen xamsatu rijaal muy juróomi góor yi xëccoo réew xanaa ñii bu nu ko yàlla defalee ñu nekk ci réew moom jullit yi ëpp ñun ñuy tànn war na noo seet ñu ñuy tànn kat moo ci gën ki ci gën nag mooy ki ci gën a ragal yàlla ki ci gën a ragal yàlla mooy kan mooy ki ci gën a xam yàlla juróom yooyu nan xool kan moo ci gën a xam yàlla kan moo ko ci gën a xam kan moo ci gën a maandu kan moo ci gën a doylu kan moo ci gën a taxawu diine ji ñu seet bu nuy sànni sunu carte ñu xool kan lan ko ciy sànni kan moo doon koo xamante nii buñ ko sànnelee sunu carte ba noppi bu ca suba gaa duñ def moment rëccu bu nu toogee ay weer duñ ne danoo rëccu kenn faloon ah saxaaba yi de bi ñuy tànn ku leen jiite bi fi yonante bi ñu jógee bi nu tànnee Seydina Aboubacar ñoom ñëpp xam nañ ne Seydina Aboubacar moo leen gën ñoom defuñu moment rëccu bi fi Seydina Aboubacar jógee ñu tànn Seydina Omar ñoom de rëccu ko. nee nañ Seydina Omar moo leen gën ci seen diine moo leen gën a dëggu moo leen gën a ñeme koor gud koor ak bëccëg moo leen gën a ñeme naafilay guddi ba mu fa jógee ñu tànn Seydina Ousmane xam nañ ni Seydina Ousmane moo leen gën moo leen gën a ragal yàlla moo leen gën a jege yàlla ñoom de defuñu muumaa réccu ba nin tànne Seydina Aliou amuñu dara luñ ciy réccu ñun nag war na noo seet noonu saxaba yi tànne woon ñu tànne noonu seet kan moo gën ci réew mi kan moo gën a bëgg lislaam ñooñu di xëccoo réew mi kan moo ci gën a xam lislaam kan moo ci gën a delloo lislaam maam kan moo ci gën a mën a taxaw sacrifice boppam ngir jullit yi sacrifice boppam ngir réew mi baax loolu yaakaar naa bu ñuy tànn war nañ koo xam ndax yàlla kat wax naa ak ñun juróom yooyu mënu ko misaalal <laughs> euh, dégg ngeen ñu ne seven cinq xaw ma kon te yàlla wax na ñaar fukki yonante ak juróom ginnaaw bi mu tànnee yonante yi seppiwaat ci ñaar fukk ak juróom yi mu seppiwaat ci juróom ne yi ñooy mursal mooy ñi ma yónni kon nag yaakaar naa ñu nit bu fekkee tànnaat nan lan lam nekkoon tànn nan ñaar fukk ak juróom loon ñu dindi ko ba mu des juróom juróom yi ñu ne ñoom lañ bëgg a dénk suñu réew ngalawaay buñ tànn ba noppi di réccu man xool kan moo ci gën a bëgg lislaam kan moo ci gën a yërëm jullit yi kan moo ci gën a yërëm mbindeef yi kan moo ci tane yaakaar naa war ngeen leen a xam candidat yi ñun ñuy tànn xañ na ñu ci umpale ñu néew la ndax ñenn ñi jaar nañ fi wax na nañ ba noppi lan waxoon defu defuñu ko ñenn ñi tamit xam nañ leen ñu ci bari xam nañ leen xam nañ leen bu baax a baax kon li ñuy bañ mu dal na mooy tànn ba noppi di ko réccuwaat loolu du mbiru nit ku teey nit balaa yëngal boppam wala muy yëngal li muy def wala mu jëmale ak tibb ci biiram war naa xool tibb bi ba xam dagan na wala daganul balaa wooteel nit na seet digganteem ak yàlla kan moo ci gën a ragal mu jël ko yaakaar naa ñoom ñooñu nag ku ci nekk bu ñu doon toog di jàng loolu da du suñu métier du suñu xalaat waaye bu ñu doon toog di jàng kan moo ci gën a euh, maandu kan moo ci gën a ragal yàlla danoon ko mën a tudd waaye loolu duñu itteel waaye nag liñ liñ itteel fii mooy yéen ñëpp ngeen wëndeel seen xel wëndeel seen xol xool par par loo jóge ci yéen ngeen dàq ko far loo jóge ci yéen intérêt seen bopp jóge ci yéen ngeen intérêt réew mi ñor leen bu boobaa di ngeen xam kan moo ci gën ndax nit bu la dëlee na la dinaa ko def defu ko dinaa def nangam waxtu sàngam defu ko kooku nag wax dëgg yàlla su ñëpp laat nee na woon nit waxi démbam ak jëfi tey mooy nit booy wut xarit xarita ngoog booy wut àndandoo àndandoo ngoog booy wut kii ñooñu nag gis nañ ne wax dëgg yàlla buñ ci dellusee tamit ci biy mujje mooy ni ñuy foyee lislaam bi bu yàggu mbaay dégg ngeen jumaa yi doon ubbi fii doon jumaa joo xamante ni néegu yàlla la wa annal masaajida lillaahi mu doon néeg boo xamante ni yàlla moo wax ne moom de mooy néegam yàlla ñaari néeg rek la am ci àdduna wala ci kaw suuf mooy xolub jullit bu laab dëgg-dëgg foofu néegu bérébu yàlla la fi nu taxaw muy jàkk ji nuy jaamoo yàlla di jumaa néegu yàlla la ajjuma dafa doon bis boo xam mooy bis bi gën ci bis yi bis boobu yaakaar naa yellante woon na lool ñuy ubbi jumaa joo xam néegam yàlla la ñu ne yàlla sa néeg bi amu na lu ñu koy teeraw lu dul politique sa néeg bi amu na lu ñu fiy sànni ay kàddu kenn du ne araam na de waaye kenn du ko fa defe neen ko fa defee jël ay ndënd ay sabar di ko tëgg ay imaam nekk ci dëkk bi te ay imaam ñoo doon jiite jumaa ji di ko dégg ci seen nopp àdduwun ca ñu di ko gis ci seen bët dindiwuñ ko te foofee nu nekkoon de addisu yonante bi waxoon ne man mun minkum munkaran fal yuxayri bi yadihi fa in lam yastati fa bi lisaanihi ba addis bi àgg ñoom ñëpp nag addis ba dajana ci ñoom ñu mën a dindee seen loxo nga fa ñu mën a dindee seen làmmañi nga fa ñu mën a naqarloo nga fa ndax buur fu mu nekk dindee loxo mën na ko loolu yëfi buur la imaam fu mu nekk taxaw ci kaw minbar dindee ci làmmañam mën na ko kon nag loola bu nu nuytee ci yàlla bàkkaar la boo xam ne ci ñoom la wéeru war rek ndax ku mën a dindee ku nekk fa addis bi toll ci yow fa sa kàttan toll fa la addis bi toll ci yow bu ko defee loola lu ñaaw la loo xam ne ñëpp a koy ñaaw la ñëpp a ko gëq di ko wàccuwaat muy jëf joo xamante nii neexul lislaam te ku nekk xam ne ne buur bu ko neexoon ci dooleem ajjuma jot mu ne kenn du julli ji bu boobaa nit ñi amuñu benn bàkkaar ndax li tax amuñu ko mooy buur boo xam yàlla da ko jox doole bu boobaa sañ na lu ëpp loolu sax kon nag pro war la ci ñoom nan seet ëllëg ki ni fal koo xam ne day jóge pale tabax jumaa cib koñ wala cib quartier wala cib dëkk ñu ne tey président bi moo koy inauguré si ñuy tànn bu baax baax di tànn président ba ñuy jël nga xam ne day jóge ca pale bi ñëw taxaw ci man minbar bi def ba wàcc jiite julli di delluwaat ca pale yaakaar naa candidat yii di ñuy def de am na ko ko ci man nan seet ki ko ci gën a man ñu wooteel ko ñu tànn ko nan seet ki ko ci gën a man ki gën a man ki nga xam ne bu defee ba noppi day nëbbu jëf ja ngir ne yàlla la ko defal amu ci soxla ki nga xam ne la muy def lépp yàlla lay def politique kenn du na ay na waaye am na lu nu war a politique ak lu nu war a politique diine kenn du ko politique kenn du ko fooyee am na ci ñoo xam boo seetloo seen yëf da nga yëg ne diine ñoru leen dañ koy fooyee fa gu mett dañ koy caaxaane dañ koy seen njuumte ci wàllu diine bari na loolu nag bu ñu demee ba cim réew ñu àgg ci jamono bu toll noonu nit ñi yor seen diine te amuñu lu gën diine ci kaw suuf yonente bi bi muy wax Seydina Omar ne ko kenn ci yéen ngëmam du mat lu dul maa ko gënal boppam gënal ko loola lam ci jublu mooy diine ma tax yonente bi daa xam ne ku ko gënal sa bopp moo la mooy diine nga am yonente bi dem ku dem ba bëgg ko te bëgg di dëgg mooy ku am diine waaye ku amul diine sax mënul bëgg yonente bi moo tax mu dëloon Seydina Omar loolu Omar na ko yaa nu gënal sunu bopp gënal nu sunu ndey gënal nu sunu baay waaye ñoom ñu ñu xool kan moo ci gën a taxawu diine kan moo doon koo xamante ni candidat boo xam bu ñu ko falee ba nopp bu ci ginnaaw suba gaa duñ def muumaa réccu bu ñu toogee ay weer duñ tudd gën waaye néew na lool naqari na lool metti na lool ñu fal diw matagut weer ñu taxaw fee di def sax saxaba yi di defuñu ko woon benn yoon defuñu ko ci ginnaaw naa Seydina Aboubacar defuñu ko ci ginnaaw Seydina Omar bu ko defee nag <clears throat> yàgg na noo dégg ci kandidaa yi am na ci ñoo xam lu ne la ñuy diggee lu ne am na ñoo xam ne dañuy diggee tëli ñi di diggee ay raay ñi di diggee ay hôpital ñi di diggee njàng mi ñi di diggee wàllu commerce ñi di wàllu santé ñi di diggee ay tracteur di diggee courant lu ne danañ ko diggee nan xool kan moo ñu ciy dig lu jëm ci sunu diine am na ci ñu ci diggee woon sax ba ne dina fexe sax ba ñi amul jëkkër ñu leen wutal jëkkër ak jigéen ñi amul góor ñi amul jabar loolu am na ku ko fi diggoon loolu xam nga ne ku ko wax la nga digge jëru ndax loolu mbiri yàlla la yàlla yàlla nit mën naa am xaalis te du am jëkkër du am jabar nit mën naa rafet taaru am jikko ju rafet te kon kuy digge loolu yaa ngi digge mbir yoo xam mënoo ci dara mbiri yàlla la nan xool ñi niy dikk néew na lool metti na lool nag nitug diine ab ab politicien ñëw fii la dig la dig la hôpital dig la ay tracteur dig la courant yi mu la dig yépp ci matière la jëm ci matière ci matériel waaye amul dara lum la ci dig sa diine bu boobaa candidat bi benn problème amu ko ndax daa xool ne lii mooy sa bëgg-bëgg lii mooy sa itte waaye naqari na lool ci xol nga dikk di kilifa ak diine ñu dig lépp te waxuñu la dara ci sa diine digunu la dara dara dara ci sa diine loola bu boobaa diine rek mooy mooy fi mu la toll rek waaye dana metti lool nga detteel diine diine detteel la ba ñëpp gis la képp koo xamante ni detteel nga diine amoo ci moom itte diine dina la detteel bëccëgu ndara kàmm gis nga saxaba yi bu leen dara masaana dal loo xam nattu la dañuy wax ne ñun nan delluwaat vérifier suñu bopp am na luñ def daal ba lii dal no am na ko ci woyofal sunna wala am bu nu demee ba vérifier ba noppi danaa ah ñun daa am luñ waroon a def ci diine defuñu ko benn waxtu julli dafa jot ñu faat wala ñu koor jot ñu sabantal ko wala dara lu nu war a def ci wàllu sunna ñu woyofal ko boobaa ñoom noonu lañ daan analyser saa bu nattu ñëwee dañuy wax ne nan delluwaat ba xam ndax xam naa ne am na lu def yàlla wala lu nu wàññi ci sunna wala am na lu nu yokk ci sunna moo tax wala am na lu nu bàyyi ci sunu diine bu ko defee nag daanaka foofu la ñuy taxawaalu taxawee bu ko defee bàyyiloo xel ñëpp lii ak kàmb la goo xam dañ koo tiim kàmbuk sawara kàmbu àjjana ku ci nekk na nga xool sa carte woowu tey boo doon jéggi siraat ki nga koy wooteel booy jéggi siraat moom ngay àndal dem ku mu leer na rek dangaa jàpp ne politique àdduna la yem ëllëg yombal xiyaam yàlla dina laaj sa carte bi nga doon sànni loo ko doon sànni ak koo ko xanaa doo ko wax mukk ne ko man de boobu lu ma def ci sama poos laa bëggoon wala gis ne sàngam rek waaye yàlla laaj la ne lu taxoon nga sànni nga ne ko damaa jortoon ne kii mooy ki gën amoon naa pas-pas dafa maa diggoon dara ci sama wàllu diine dana ma woon sama wàllu diine dina la jàppale xam ngeen ne nguur bari na luy naqari nit ci diineem wala lu koy neex ci diineem nguur a ko ko def ndax nguur gi tey bu ne woon aaye nan jaay sàngara aaye nan jaay dorog aaye nan jigéen ñi jaay seen bopp aaye nan ci télévision bi nangam loolu dañ koy daal di bàyyi ci saas mais loolu imaam dong mënu koo def imaam mënta waar gisu leen benn imaam boo xamante ni waaraate ni fii ba woykat yi woy ñu bàyyi woy fecckat yi fecc ñu bàyyi jaaxaan amut kenn mësa guleen a gis benn déclaration boo xamante ni fecckat bi doon fecc wala woykat bi wala fubalkat bi wala bërikat bi dafa taxaw ne man de li tax ma bàyyi lii mooy daa am benn imam bu ma ci waar wala benn kilifa diine goo xam moom laa dégg waxtaanam déedéet loola kon mooy wane ne li ñuy def il faut nguur gu baax a jàpp ci loola nag ñu ngi koy séentu ci candidat yi ki ci gën ki ci gën it moom lañuy ñaanal yàlla toroxlu wàcce suñuy loxo ne ki gën ci candidat yi na ko yàlla teg ci réew mi ki gën a yërëm diine ki ci gën a xam diine na ko fi yàlla teg loolu rek mooy kii bi ñuy sant ñëpp tëgg nag moom yàlla kenn ku ko daa daganal da nga borom xam-xam bu gëstu rek imaam Malik dama lu mu gëstu woon te yaakaar naa kenn du naat table xalaatu imaam Malik ak xam-xamam ban ko laajee ne ko ndax tëgg daa araam wala araam mu ne de tëgg de man xaw ma araam na wala dagan na wala daganul waaye ñi yées ca suñu dëkk ñoo koy def yaakaar na ñi yées nag ñooy fecc te noonu la la demee même Sénégal noonu la fi demee ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di baalu àq ñëpp ñu joxaat leen daje ci yeneen jotaay wasalaamaaleykum wa rahmatullah dinatu ilmin na minnatun lana jariun mujin min sunu